daal leen ak jàmm wàllu politique tàggat yaram ak yeneen xibaar moo gën a fës yéene gars génn tey yi ni xam ne kat dañ ko dëgg ma si tañ jàpp ko ci weeru janvier bi nga xam ne moom la nekk nan kat élection yooyu dina am solo trop ndaxte kat enjeu yi dafa bëri ginnaaw ay bés moom moo ñu door campagne électorale bi ci élection yi nga xam ne war na am ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier bi ñu nekk état major politique yi nag ñu def seen kéemtu lay

Pape Amadou Fall bu la Gazette nee na kat du yomb ndaxte kat kenn amagul ndam ba day ñu des ci wàllu élection locale yooyu Sud Quotidien di fësal ne démb sax njiiti réew mi nag ci ne ay kàddu ci élection yooyu nee na kat ñun nguuru Sénégal war na jël ay matuwaayam fexe nag amal ko ci ne mu muccee ayib li ni mel tam moo fës yéeni kaay bi di la soleil kàddu yooyu nag Macky Sall mu ngi ko ci démb ci conseil des ministres ci wàllu conseil des ministres boobu sax ci la Macky Sall xam le ne kat moom ginnaaw ba exportateur yi ñaanee ne kat moom dakkal na texte à l' exportation ci lëm ci wàllu gerte gi ngir rek fexe nag bu suqali lépp loo xam ne jëm na ci wàllu gerte gi ñu des ba tey ak suñu naataangoo yi ñu dellusiwaat ñun ci yëngu-yëngal bi nga xam ne kat ASP yi amoon nañ ko démb loolu nag fii ak ñetti fan dinañ ko xàppati ngir rek ba ne liggéey président national des ASP du Sénégal di Cheikh Mbacké Seck seqi waxtaan ak suñu naataango yi yéene kaay bi di la Soleil ne na kat li ni mel dañ ko def ngir rek yëgal fàttali njiiti réew mi li nga xam ne kat moom leen leen diggoon njiiti réew mi dafa xoon ci wàllu conseil des ministres ci ñaar fukki fan ci weeru janvier nekkat dina yokk lu jëm seen contrat ca Sédhiou tamit ASP yi jot nañ yëngatu seen bëgg-bëgg lenn rek la ñu fexe nag ba jëleen ci wàllu fonction publique Sud Quotidien moo ñu ko xamal suñu naataangoo di ci yokk ba tey ca tamit grève bi topp nañ ko bu baax a baax loolu nag jëm ci wàllu région bi yëpp ASP ñu leen taxal woon ci atum ñoom kat dañoon jàppale ci wàllu liggéey bi takk der ak tamit wàllu administration publique bi ginnaaw nag la ñeen yóbbu ci wàllu structure privée ak tamit cité religieuse yi ñu defaloon ne contrat ñaari at boo xam ne kat benn rek lañ ko war a yeesal te conseil des ministres bi nga xam ne amoon na ci ñaar fukki fan ci weeru janvier atum 2021 Macky Sall doon wax gouvernement bu Sénégal kat mu yokk contrat wu ASP yi ci benn at bëggoon tamit ministre na ci wàllu corps spécial ci ñi nga xam ne kat ñoo nekk ci am na acteur politique ak tamit association yu bëri yoo xam ne amoo ab daje démb ca Bamako ngir rek ñaawal chronogramme bi nga xam ne kat jeune bi def nañ ko ngir rek yokk transition bi ba juróomi at ñu des ba tey ca Mali ak ndaw li nga xam ne moom na fa nag Afrique de Kii Afrique wu jant daal di yebal moom kat demoon na démb fële ca Bamako ngir rek jox Assimi Goïta li nga xam ne kat mooy message yu dirigeant wu.

benn ñoo xam ne que lañ bokk ci encadrement bi football kat yooyu kat ñii lañu Saliou Ciss Mamadou Loum Ndiaye Pam Matar Sarr Alfred Gomis Nampalys Mendy ak tamit yi moo ko bind su ci yéeni kaab bi Sud Quotidien waa Gambie am ci ciit njàqare ndaxte kat mbas mi dafa laal seen équipe bu baax a baax ñoom kat bind nañ kaaf ngir rek mu may leen santeen ñu remplacer joueurs nga xam ne dañu am mbas waaye kat kaaf dafa bañ moo tax waa Gambie kat li jàpp ñoom li ni mel bu ñu ci jógul nag du ñu am équipe boo xam ne kat dañ ko mën a ci wàllu compétition bi yéen kàddu la soleil ba tey des ak ñun ci mbirum CAN bi ak tamit wàllu covid bi jour bi nekk Youssouf Sakhi nag nekk ci Tunisie am solo lool ci wàllu équipe nationale bi moom lu bokkul ci préparation bi ndaxte kat dafa am feebar bi di mbas mi règlement wu bi kat moom dafa leer amul benn jour boo xam ne kat dañ lay wutu su fekkee ne am nga La politique, le sport et d'autres sujets sont développés dans les journaux ce jeudi. Sud Quotidien s'arrête sur le scrutin municipal et départemental, une élection, mille localités à enjeu. C'est le titre qui barre la une du journal. À quelques jours du campagne électorale pour les élections locales du 23 janvier prochain, les états-majors politiques s'activent pour aller à la conquête des villes, des communes et des principaux départements du Sénégal, des collectivités territoriales qui risquent d'être objets de lutte sans merci tant les entre en tête desquelles on retrouve pêle-mêle la majorité Benno Bokk Yakaar Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal la victoire n'est pas assurée d'avance au regard de la profonde reconfiguration politique que présage ces joutes Sud Quotidien a donné la parole à des confrères selon Malang journaliste et correspondant de RFI on se dirige vers des élections assez représentatives de ce qui se fera pour les législatives à venir pour Pathé analyste politique et rien n'est gagné d'avance pour qui que ce soit. Toujours à propos des élections locales, nos confrères de Sud Quotidien révèlent que le chef de l'État a indiqué au gouvernement l'impératif de prendre toutes les mesures requises afin d'assurer une bonne organisation des élections locales. Macky Sall insiste sur la bonne organisation des élections locales, écrivent nos confrères du quotidien national Le Soleil. Le chef de l'État qui s'est prononcé en Conseil

l'État Macky Sall sur leur situation. Selon lui, le chef de l'État avait annoncé en Conseil des ministres du janvier sa décision de proroger pour un an la durée du contrat des assistants à la sécurité de proximité. Entre 6 000 et 7 000 ASP sont concernés par le contrat arrivé à terme depuis la fin de l'année, selon le président national qui précise qu'au-delà de la question des contrats, il invite les autorités à augmenter le pécule mensuel destiné aux agents

Créée en 2013 par le chef de l'État, l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité a recruté 10 000 agents tout au début pour constituer un personnel d'appui des forces de sécurité et de l'administration publique. Le champ d'intervention des ASP a été ensuite étendu aux structures privées et aux cités religieuses. Ils étaient recrutés avec un contrat de travail de deux ans renouvelable une seule fois. Lors du Conseil des ministres du janvier, 2021, avait informé le gouvernement de sa décision de proroger d'un an la durée de service des ASP de la promotion 2014. Il avait demandé au ministre de l'Intérieur d'envisager la création d'un corps spécial de ces emplois de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité. Sur l'international, selon Sud Quotidien, plusieurs acteurs politiques et associations se sont réunis hier à Bamako pour dénoncer le chronogramme proposé par les autorités qui prévoit Nous restons avec nos confrères qui révèlent que l'émissaire des États de l'Afrique de l'Ouest s'est rendu hier à Bamako pour transmettre à l'homme fort du Mali Assimi Goïta un message des dirigeants de la région à quatre jours avant le sommet à haut risque dans un pays en crise. D'ailleurs, les actes de violence se développent dans le sud et l'ouest du Mali. selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui tire la sonnette d'alarme dans le quotidien national Le Soleil. En sport, CAN selon Sud Quotidien, l'équipe nationale du Sénégal est arrivée hier au Cameroun et a rejoint son camp de base à Bafoussam. Le Sénégal s'est déplacé 109 joueurs qui ont été testés positifs au covid Cette situation, constatée mardi après la remise du drapeau national, a entraîné le report du départ hier à 10h. La Fédération sénégalaise de football informe dans un communiqué que des joueurs ainsi que six membres de l'encadrement qui ont contacté le Covid-19 n'ont pas fait le voyage avec la délégation. Pour les joueurs, il s'agit de Saliou Sis, ajoute nos confrères du quotidien national Le Soleil. Sur le même sujet, Sud Quotidien révèle que la Gambie tire la sonnette d'alarme

règlement de la